Bonsoir chers téléspectateurs, merci beaucoup de regarder la télévision Futur Média. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct fii ci télévision Futur Média ngeen daal di dal ak jàmm ci seen émission L'Oeil du Tigre. salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi comme ni leen ko Fama Thioune waxee rek di leen di ñaanal ngeen dal ak jàmm ci émission bi nga xamante ne yéen amateurs yi ko tànnal seen bopp mu mhm. nekk émission favorite ba tax na dal leen ak jàmm mbokki téléspectateurs yi ci biir émission l'œil du tigre mais surtout aujourd'hui en direct Fama. waaw gis nga en direct lañ leen ko fas yéenee defal tout de suite Mado on commence ak li nga xamante ni nag moom mooy open mhm. soo leen déggee open mooy dañ koy yaatal lépp loo xamante ni dafay laal lamb rek. Mhm. dañ di cuut càpp rek daal di leen koy wan on commence koy waxee waxee rek sans transition tout de suite dañu ànd nag ak ki nga xamante ne moom moo di Fama mu defal ñu un petit rappel de combat yi nga xamante ne moom moo amoon ci week bi. ayca ñu xool yi alors Madou euh, résultat yi dinañ ci daal di ñëw ci kanam dañ koy daal di rënk tuuti rek parce que lamb ji nga xamante ne amoon na ci week-end bi bëri na mhm. vendredi lamb ju rëy amoon na fi nga xamante ne moom mooy stade Iba Mar Diop mhm. samedi amoon na dimanche amoon na lamb lundi tamit amoon na lamb donc dañuy daal di juste jàll ci li nga xamante ni moom mooy spécial comme ni ngeen koy defee à chaque fois xam ngeen spécial mhm. miin ngeen ko moom la ñuy tuppee le grand ko dañuy daal di tànn ndaanaan parmi tant d'autres ñu koy jagleel li nga xamante ne moom mooy suñu spécial émission ba émission moo consultant tonton Mbaye Fall dañuy daal di àndandoog moom di ko poser ay question di xool culture am di xool lépp loo xamante ni rek moo bloqué mbër moom wala moo tax mbër moomu avancé rek ñu daal koy jàllee fii ci télévision Futur Média mhm. mais balaa boobu Mado di jàll ci li nga xamante ni parce que ki nga xamante ni moom la ñu invité waaw bëgguma koo faram fàcce wax ko léegi déedéet dafay yomb dama koy tas tasar dama ko bëgg tas tasar baaral ko mhm. ngeen xam kan moo kan moo fas nekk champion bi nga xamante ni moom la ñu tànn tey balaa boobu ma leen koy wax nag année spécialement tey alors spécialement comme ni nga ko waxee rek Fama Thioune comme ñi ngi doon wax tout de suite ci uh-huh. li nga xamante ne moom moo di résultat yi mm-hmm. donc dinañ ñëw ci résultat yi ñëwaat ci li nga xamante ne tamit moom moo di le grand rendez-vous ak ki nga xamante ne moom moo di euh, Tafatine foog ma wax leen ko Fama denc na ko naka jekk ma xam ne Mauritanie ba mu fa dina am lu mu indaale naka jekk man ci le <laughs> yaa xay di wan ni biig waaye nag il fallait woon dama ko denc mais dama xam ni nit yi dañ ko bëgg ba pax il faut ñoom ñu toog ñu xaar <laughs> kon nag nee nañ cin balaa baax day xeeñ mbokk téléspectateurs yi tafaatin mooy ñëw tey bu leen ko raté faama. d'accord léegi xam nga lu ñuy def ma may la Xaadim Samb en français sur tafatin ma may la boobu. Ah? nañ dem wala bëggoo ma may la boobu dama koy baaral ma denc ko. Ah, baax na man daal yëpp ngi ci sa loxo. léegi xam nga lu ñuy def mhm. léegi nañu jàll ci affiche ak tafatin tey moom la ñu am envie ubbee ngeen xam kan mooy tafatin ngeen xool bu baax kan mooy xale bu góor boobu nga xamante ni jàmbaar la. ci li mhm. nga xamante ni moom mooy làmb ji nañu seetaan spécial la télévision Futur Média affiche ok nga dugg ci tournoi boo xamante ne ñëpp dañ la jël ne yaay favori bi. Mhm. waroo ci bokk nga doo seen moroom nga am ci deux victoires benn défaite loolu man ban jàngat nga am foofu tamit. waaw dëgg la xam nga tournoi yegg naa ko dugg dugg naa ko bu ma juumul 2007 waaw dugg naa ko duggate ko kon xam naa lan mooy tournoi ak naka lay doxee xam nga dugg naa ci moo coow li bëri woon na Tapha Tine war na ci bokk waru ci bokk xam mais tam ma gëm li ma gëm rek man tam li ma gëmoon mooy ñim dama leen di daan du yàgg waaw heureusement ma ñàkk ci benn comment boobu lu yàlla tuddoon la ci man mënul ñàkk la bokk dama koy sant yàlla waaw ma ne tolof la ma ne dara dama doon bëre ji ñu daan man sa tur jeex na nga defee tournoi bi jeexee ban jàngat nga def wala ban ci am wala la la ci naqari lan la la xam nga lam moom xëy na li la ci neex mooy nga dem bëre am ndam da lay neex nga dem bëre ji am defet da lay metti làmb noonu lay fonctionné xamoo xëy na nag ñu bëri du ñu comprendre gisin bi day day day wute mais yow litère bi yàgg bëre dem daan ay doomi jàmbur xamoo seeni mbokk dem ànd ak naqar xamoo yow itam bu ñu la daanee da muñ rek sant yàlla bu baax a baax dem julli ci yàlla ñaanaat foofu mu mayaat la yeneen mu si kanam. ban jàngal nga am ci làmb diggante bu tijjeeg léegi ak fan la jëm fii fin de saison. non day neex pour man mooy dàq saison bi passé la Tapha Tine am naa yaakaar bu yàggul dara dina am combat incha allah. waaw ah waaye. kon da nga bëgg wax maa ngi ciy waxtaan ak ñu bëree bëri pour man dina am combat bu la saison bi tey. te combat yu mag yi ñu ngi taxaw am na combat bu mag bu dara bu taxaw yàggul dara. Hmm. suñu journée bi yaakaar naa lam gën na ko mag. ñu passé nii. bu ci beneen tegoo beneen tegu ci yaakaar naa année bi day sóore. beneen année la ñuy wax mais pas bi. mais gis naa ne sa forme bi nga amoon ci diggante ak Bombardier. Hmm. am ko diggante ak euh, Elton. Hmm. moo gën yeneen yi ma gis ak ci loolu. non du mu gën a la moom mu gën a man. may sa sa poche yi nga am ak Elton boo. ay cent boo xoolee cent quinze normalement bi muy bëmbër ba léegi bëmbër ji boo xoolee ay cent trente quelque kon poids bi ute na sama poids bi mooy bëree ak bëmbër ji moom laa jëlaat. waaye. jar temps yi parce que combat yi mujj yi gars yi na ne mais Tapha Tine dafa rëy ay sos yu tuy mu wàññeeku mu rëy mais c'est normal rek combat bu nekk na koy préparé sos dama ñëw pare ko rek dama ñëw paan ci kawam rek du am fenn fu mu jaar bu dalee sama kaw du am dara bu ma ko jàppee du am dara mais gis naa Ama Baldé aussi nekkoon ci forme bu ma tax loolu forme bu gis mais maa woon ci maa ngi maa ngi woon ci forme ñëw naa ak ak luur xëy na combat bi noonu la waroon demee ñëw naa la mujj foogu rek amu ko mu ñëw yoxoo sama jàpp sama tànk way moom a tëdd. noonu la demee mais Ama Baldé aussi dóoroo ko benn yoon te Ama Baldé eh, xamoon nga ne say tànk lay dugg te pourtant dugg na sa tànk nag. non xam nga rek combat bu ne ak na nga koy pour fayat ak moom duma ko daanu ko loolu laa jëloon décision moom it am na leneen lu mu préparé te xaw bi xaw ma ji dara waaw. bu ñu mënoon wax adversaire bu ñu mënoon wax ñan ñooy mhm. wax. Mhm. waaw mais xam nga tafaatee moom liggéey na liggéey boo xam ne ci làmb ji amul benn lutteur bu mën a taxaw ne tey Tapha Tine du ma bëre ak moom. dëgg la pour man amul. du ma taxaw ne nag kenn dal ma ragal wala kii nit kese laa damay entraîner sport laay def du ma taxaw ne kenn dama ragal lii wala laa xama mais pour man tey tey tey lambu Sénégal Tapha ci la bokk ci la mos di bokk. moo liggéey lu tax mu bokk fa mu nekk xam te pour man ba damay teggi sama ngem pour man dara duma ma fa jëlee. ñi ma gis nii du ñoom ñooy tax bu ñu jógee foofu. ñi ma gis non. Euh, musuma dégg man musuma dégg sa gars yi jiw ne combat Tafatine Eumeu Sène mais pourquoi musuma dégg kenn wax ko musuma dégg ko ci jiw mais loolu loolu xanaa naqariwul loolu wala mënuma mënuma mënuma naqari parce que làmb <laughs> Sénégal moom xam nga mooy loolu Tafatine daal l'essentiel mu ngi def ay entraînement pour ni mu waree képp ku yàlla dogal ne dañu war a jàkkaarloo ak yow di bëree. dañuy sëy incha allah te bu arbitre bi soufflé mooy dox ñoom. kon Eumeu Sène normalement sa adversaire la moom tamit. ñoom ñëpp. Tapha Tine am na jabar. waaw. Tapha Tine kañ nga am jabar yi. non yàggul bi ma voyagé États-Unis laa teg jabar. états nga takk jabar. non takk Sénégal laa ko tàggee. dañ ma ko may sama ginnaaw muy fi. mi ngi topp topp. ah bien sûr pourquoi ku am jabar loolu togg yan lay toggal loolu lay toggal non yu baax rek hmm. sometimes ma dugg ci internet bi xam nga gën ay plat yu baax dóoram ma ko fit fe <laughs> bàyyi na rek caméra li xam loo bëgg a wax waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp la sant yow Père Tapha Gueye ak waa TFM ñëpp ak Thiam Hercule sama waa écrit waa Bawol Mbooloo fan si club Bawol Mbooloo yëpp ak waa Medina we xam nga saa bu ma jógee ñu jóg xam nga ak bépp fan si Tapha fu mu nekk sama gars yi nekk États-Unis ñoom mer Ndey Fall xam nga ak laay permisu waa bronze Elda avenue bi yëpp xam nga Gambie yi nekk foofu ak Guinée yëpp maa leen di bëgg ñoom ñëpp di kontaan ci ñëpp sant aussi sama nuñ koy waxee di sant ñoom Père Juma xam nga ñoom laay parking VIP ñëpp maa ngi leen di béggee xam nga di leen siyaar di sant Kër Mbaye Thiam di santaat sama papa bu baax di sant waa RFM gépp di sant waa Bawol xam nga di wax ne kontaan naa ci émission bi père jërëjëf ñu ngi leen di fàttali que vous nous suivez en direct sur la télévision Futur Média tey nag suñu grand spécial ñu ngi ko defandoo ak champion bu mag ñu koy duppee li nga xamante moom mooy le géant du Bawol muy moom la ñu dalal tey ci suñu plateau moom la dalal tey ci suñu émission l'Oeil du Tigre alors ñu daal di moo ci topp ak Tapha waxee rek Tapha Tine ku ko xam-xamee ko moom moo ci taq rib taq rib nag wane na ko ba tax na soxnaam moom itam ñu ngi koy <laughs> sargal ndax gis nañ ci taq na ci rib ba taqee ci li nga xamante ne moom moo di plat yu muy dugg ci internet bi defal ko ko waaye li ñuy def rek mbokku téléspectateurs yi dañuy jàll tout de suite ci li nga xamante ne nag moom moo di tebbi xob miin ngeen ko xam ngeen ko dañuy mhm. ànd ak nag ki nga xamante ne moom moo di tonton Moustapha Guèye saa su ne moom mooy dem ci mbëri fas yéene ànd ak ñoom ñu tebbi nag seen ay xob wan leen ko nañ dem xoolaat tout de suite Sénégal maa ngi lay may sama combat ak Boy Seye. sa combat ak Boy Seye. Mhm. naka la tuddee woon champion. ko sama combat ak Boy Seye dañu xeex parce mhm. sama gaar man li ma mën a def pour jàpp ko rek parce que xëy na xes na dugg sama gaar man naka laay def pour jàpp ko rek maa ko doole période boobu xam nga. da ko sentir woon. dama ko tàkk sentir ko tegal ko sees antaaje ko dóor ko ci suuf. mais gis nañ ne combat moom dafa ci xaw a mel ni du mois ah, loolu lay ko bañ moo ah. dëgg la am na combat yoo xam ne day jaar nga jël coup pour mën a jàpp. parce que bu ko waxee coup booy sa yooyu période boobu non wàññiwuma dara. Sénégal maa lii leen may ko combat ak Elton. mais Tafa. Mhm. lu tax nga may ñu sa combat ak Elton. pourtant ko mais mais yaa na combat bu neex combat xam ne bu ma marqué la sama carré ak li ci xewoon ci ay ay wax xam nga. Mhm. li ci xewoon xawoon nañ ma xeeb ki mënoo ko daan moom it mu sonaloon ma xam nga fu ma aw mu sonal ma xam nga li desoon mooy tegi tuuma rek dem bëreeg moom. daan la ëppoon noonu yaram ah, lan la lan la lan la posé woon ci combat boobu. non bu ci dara xam nga Elton yor na gawar boo xam ne nii pour nga ëpp ko moom yombul waaw. Elton dóor yi ñu ko dóor yëpp. Mhm. te daanu lan moo tax Elton ba léegi àggale yoo ko benn yoon mu jeex. non am na nekk na nit ku am doole. Mhm. xëy na euh, kawoote na mais en même temps day gaaw a ximle ko quoi comme niñ koy waxee waaw day gaaw a dellu si xëy na loolu moo tax. daanu ma woon te noonu la laam ji waroon demee suur boobu daal. mais gis nañ Elton jóge ci géew bi. tërëf jëm ci médecin ya nii mais ku ku ku du ku ñu àtte. Mhm. nga demal ci médecin ngir tërëf. ngay tërëf waaw boobu. Étienne yaa ngi woon gis yow. non moo warul leen foofu parce que boo xool dem na ay ardo maintes fois maintes maintes fois xam nga dañu waroon arte laam ji bu yàgg. parce que ah période bi muy dem ardo yi faju boo neexatu fa xamul fu mu nekk. ah kon euh, métti na ci moom période boobu. kon su ko dal su ko dara dalal foofu responsabilité arbitre bi nga. amateur Sénégal yi ak ñi bëgg làmb ak ñi suivre làmb ñëpp. Sénégal yi yëpp ak fu ñu mën a nekk ci àdduna maa ngi leen di may sama combat ak Bombardier. ñu gis aussi sa combat ak Bombardier ak combat Elton na ma fekk ko si daan nii. si mhm. combat ak Bombardier. waa dëgg la parce que nekk nañu euh, combat yoo xam ne nii préparation yi mën naa ne benn lépp su laa doon liggéey. da ngaa bëri Elton teg teg ci Bombardier. teg ci Bombardier waaw amul kenn ci diggante bi. non non amul amul différence xëy na différence bi mooy voyage naa fi dem xaw a yokk tuuti. ñoo taxaw Bombardier ope wu ma dara. différence boobu rek amoon sama diggante euh, ak Elton quoi. Bombardier seen combat yéen ñaar dañ gis Bombardier ñëwoon pour duma la dañ ne brib dafa ñëwoon pour duma la. Mhm. tout de suite da nga doon jàppante ak moom yow ci ci gañe pour pourtant. jakaaroo nañ trois fois ci lam ji saa bu ñu jakaaroo dama ko koy wax ma ne ko dinaa la duma boobu bëreegu leen non wax naa ko ko Diourbel deux heures du wax naa ko ko Yoff six heures six demi wax naa ko ko RTS euh, vingt et une heures kon duma yooyu daal dama ko préparé woon waaw ma ne ma ne moo taxoon jóg mais ñëw woon pour jàpp ko buddi ma ne waaw ma ne ko dinaa la duma dinaa la dumal dinaa la daan loolu laa doon dëgal si nopp bi toujours kon duma nga ko. ah bien sûr noonu la demee. est-ce que jël jël nga ci làmb ji keroog. yu bari sax. yow sa bopp jël dem naa ci ardo deux fois ñoo doon ànd. Oh. yaa. yéen a ànd voyage ànd ñëwaat. waaw. soo sa suur mu nga nii ma naan ko nii demal faju ji mu ne ma demal faju ji dem naa deux fois xëy na saa bu ñu demee moom mooy gën a mettile rek. waaw léegi fan la arbitre bi sukkandiku ba jël ba jox la victoire bi donc. non dafa dem boo xam ne moom it mënatul dem après mu jox moom victoire bi. Sénégal yëpp maa ngi leen di may sama combat ak Yékini Junior. mais <laughs> loolu lu mu demee noonu yàlla boobu dafa at yéete message ce jour-là tax tax ko soxla woon noonu. non non am nañ ko. mais ñu ko doon ci noonu. c' est c' xam nga laam booy xool li nekk sa ginnaaw ak préparation bi nekk na loo xam ne waroo cee maye dara waroo ci bàyyi dara parce que nekk na loo xam ne loo ci maye lu ne sa morom jël ko exploité ko dal di dem yoonam du question soxor du dara. Yékini Senior dañuy gisee dafa xool nga ko defee est-ce que man xam naa xam naa la tax nga defee ko xool non non non non non du xool xam nga tax nga defee ko xool gis nga da nga dugg ci classe non non non dafa da nga dugg ci classe waaw am première défaite am deuxième défaite mu sa troisième combat waaw sànni tàccu waaw loolu moo moo moo moo tàngal sa xol métti la ba nga ba nga defee moom façon yokkal nga non du question tàngool sax combat boobu moom moo demewoon noonu rek ne woon na combat bu métti ci man boo xam ne ni waruma koon ñàkk parce que day nekk combat yoo xam ne boo ko ñàkkee rek mën naa ne sa carrière dootul am solo. et puis ce qui m'a impressionné mooy. Mhm. combat technique dëgg nga utiliser foofu. dëgg la ba jaar ci man xaw ma ne mën nga loolu ah. non loolu dama koy bëree dama koy bëree. da ko daan même guy gi nan laa ko def même prise la rek. Eh. début sol jaar ci poxotaan yi. Hmm, loolu dama koy dama dama koy bëree. mais yëkkati bi ko yëkkati noonu dafa oyof wala lu mu demee noonu. question oyof loolu prise la boo xam ne nii tey boo ko noonu def loolu Sénégalais fii du du bëri ñu ko mën. arraché dafa jafe. Mhm. bëriwul arraché tànk moo koy def wala loxo moo koy def. rein rein da koy liggéey. parce que da gis nit day wér nit ndoom mu nekk fa di yëkkati fii ba suba du jóg. parce que xamul nag la ñuy yëkkatee ku ñu wer ndoom man ma la wéroon ndoom rek mujjee. waaye yéen waa Sénégal maa ngi leen di may sama combat ak ceek. ndax nga ko plaqué facilement noonu mu yomb trop gars yi dañ a galaaj la galaaj la wala ah loolu la gépp wax ah la wax <laughs> mu ne galaaj nee na woon fi yëpp xamul lan nee dafa xamul lan wax xamul lan la noonu la la moom balaa ay comprendre yaa ngi ci suuf balaa xam naka la su que ah, gis naa ne vraiment plaquage bi sax demul li mu wax demee te te jaaxal na mu xam a jaaxal quoi non dama ko calculer xam nga placage boo ko bëggee def te doo sonn calculer tànki waa ji ni mu taxawee. Mhm. nit bu dëree bu temps yi pour nga plaqué ko mu réussir day jafe. saaru sàcc da ngay xool calculer temps yi ci ni mu taxawee en même temps nga dawee koor bi dawee koor mooy diggante ndigli ak puxtaan bi ba mu ba mu dox nga plaqué ko. est-ce que ceeb xeexam ngeen si xeex nañu xeex bu métti sax. Ah mhm. moo dem ci xeex wala non dóor ma ay coups yu metti moom man ay uppercut laa ko dóor ci biir jàppante ci biir bi ak ci tàmp yi Tapha Tine moo duma ba moo duma Bombardier le roi des arènes daan ko aujourd'hui dëkkul Bombardier mais combat jaadu si diggante ak Bombardier donc Bombardier Tapha Tine mi lay xaar Lac de Guiers numéro 2 Tapha Tine mi lay xaar Balla Gaye le roi des arènes aussi Taphatine mi ngi xaar Taphatine mi ngi xaar képp koo xamante ne mbër nga ci làmb ji fii ak fenn saison la war nag nee na dafa tàng xàmmeewul jàng ak joor kon bu gaañ ñi kii mooy Taphatine Taphatine ci yar ga Taphatine ci teggin ga Taphatine ci fonk làmb Taphatine ci fonk ay supporter am gars yi Taphatine dañu ko présenté sax yàq wax la salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu merci beaucoup moo consultant ñu ngi koy nuyu bu baax namm nañ ko Dakar namm nañ ko vraiment bu baax a baax <laughs> on espère que mu ngi ci jàmm foofu mu mhm. nekk ñu ngi koy ñaanal chaque jour que muy gën a nekk ci jàmm bu baax a baax alors tout ma suite ñu daal di enchaîner ak li nga xamante ni moom mooy sunu zapping sunu zapping miin ngeen ko xam ngeen dañuy cuuc RTS cuuc <laughs> Sen TV cuuc 2STV cuuc fépp daal daal di euh, jox leen li nga xamante ne moom mooy buzz mooy def actualité mhm. ak image yoo xamante ne boo leen koy seetaan da ngeen di am trop lu leen di neex donc on va regarder ça revenir léegi léegi ci plateau bi Pourquoi? Pour un jour très très spécial euh, pour toute la vie. Moi suis très moi aujourd'hui. Vraiment Tivar mon ami qui m'a suivi longue distance. Dieu nous rendre grâce à Dieu qui nous permettre aujourd'hui nous rencontrer au niveau des stadiums Iba Surtout le lutte avec frappe c'est mon sport national et Sénégal. Félicitations. того, чтобы защищаться. Он не ожидал такого навала. Он, и я думаю, что Дурадол бьет очень сильно, потому что Дима Кудряшов умеет держать удар. Вот это бой! И ведь был у него момент, да, когда он потряс Дурадолу в начале поединка. Был, был. Казалось, ну, что вот уже все идет что происходит? привычной развязки. Но вот эти бреши в защите, слишком, конечно, были очень Мне кажется, неожиданны. слишком много. Понадеялся Дима. Арбисуля варна Байнджага, Пепе Джунде. Байнджага Монюан Канау. Байнджага Дурна. ñu ngi benn benn fi mu ñu ngi benn benn ñu ngi benn benn ñu ngi benn benn door nañu door nañu bàyyi njëgam mu daanu door nañu bàyyi njëgam mu daanu

Kairé Faye Jet Li daw na songu ko dal di koy door droite Jet Li door na ko droite door door ko mu daanu mu tërëf na Jet Li fàtt na ko fa yegg lem na ko daan na ko ko daan ko da ko door mu kawoo mu mu dogal ko dox Muhammad show. Watch this. Watch Ali. Watch, watch, Jan, Jan, watch me, Jan. Watch the feet, Jan. Jan, my feet. Watch the feet, Jan. I'm bad. I'm jaajëful bu baax ki nga xamante ne tonton bay Fall la saa su nag moom moo ñu jàppale ci li nga xamante ne moom moo di sunu zapping di defaale en clin d'œil à tonton Moustapha gis nañ ko nag sama xel dem na ci tàngu tuuru soo ba mu fees dell kon nag moo hmm. ko téléspectateurs yi sunu zapping nañu demoon waaye ngal la yéen bu leen zappé ndax saa su booy def émission dafa ñu lay bunge wala ñu lay bootaale maanaam ñi lay jox di wala xaalis kon nag tout ñu dem nag xool li nga xamante ne moom moo di publicité bu ñu ñëwee nag xam naa ni li nar a ñëw moom gëm naa ne moom mooy daax donc ne zappez surtout pas merci beaucoup à suñu sponsor euh, leader boobu nag ñuy woowee bisik Mado xam nga bu baax ngëneel yi nga xamante ni moo nekk ci bisik xam nga ni à chaque fois comme ni ma koy waxee daf lay gunge jusqu'à la réalisation de tout projet boo am mm-hmm. projet boo mënti am boo fa commencé di fa denc as tuuti sa xaalis daf lay gunge ba nga mën a réaliser projet yooyu mhm. teg ci day banque de proximité te ñun dañu bëgg banque boo xamante ne dafay jegeeg ñoom dañu bëgg banque boo xamante ne jege mhm. population bi comme ça lu leen neex rek da leen koy daal di defal à chaque fois day banque boo xam ne dafay nekk à l'écoute daf lay déglu bu baax baax doxantu leen fa ngeen ubbi fa compte mhm. surtout ngeen ubbi fa compte d'épargne pour vos enfants c'est important ngeen di épargner pour seeni di permettre beaucoup de yoo xamante ne du léegi la njariñ bi waaye ci kanam a boo fay a denc ci ngay gis njariñ bi les conseil sont toujours à l'écoute da ngeen fay daal di doxantu rek ñoom ñu jàppale leen bu baax a baax ñu mën leen a gindi ci yu bëri comme ni ma koy faral di waxee BICIC c'est la meilleure banque ici au Sénégal doxantu leen fa ngeen am yu bëri Mado léegi-léegi yaa ngi doon annoncé li nga xamante ni mooy résultat yi mën nañ cee jàll waaw kon nag ni ñuy def rek sans transition rek nañ dem xool li nga xamante ne moom moo di résultat yi léegi nag ñu daal di ubbee lamb ji nga xamante ni moom moo amoon vendredi 13 mai 2016 au stade Iba Mar promoteur bi nga xamante ni moo doon tëgg lamb jooju mooy Kandji production le promoteur du troisième millénaire. alors ñi nga xamante ni ñoo ubbi woon làmb ji nag mooy Kaw Gourdin Kaw Gourdin mu ngi bokk ci écurie HLM Grand Médine moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy caporal bu écurie Sénégal bi ki ci topp di Pape Kane 2 Pape Kane 2 bokk ci écurie Thiaroye sur Mer. moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy limousine bu écurie HLM Grand Médine Boy Thiaw bu écurie Cheikh moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Major bu écurie Double Less ki ci toppaat di serpent bu écurie Parcelles Mbooloo moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Alkaïda bu écurie Bawal Boy Ndong bu écurie Sénégal bi moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Ngiraan bu Fodé du Suba combat bi ci topp Robert bu écurie HLM Grand nga xamante ni moom mooy aéroport bu écurie Pikine Mbooloo beneen combat bi nag moo doon opposé ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Super Jamono bu écrit Mor Fadam moom moo daan ki nga xamante ne moom mooy Bour Dali bu écrit Sénégal bi beneen combat bi nag Jamso bu écrit Bërsku Sow moom moo daan ki nga xamante ne moom mooy Joni bu écrit Waalo combat spécial bi nag Franc bu écrit Parcelle Mbooloo moom moo daan ki nga xamante ne moom mooy Serigne Ndiaye 2 bu écrit Fass léegi nag ñu daal di yegg si ci finale bi ci combat de choc bi nga xamante ni moo amoon entre Garga 2 bu écurie Dóor moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Valdo bu écurie Boul Falé lii la ñu amoon ci bisu vendredi 13 mai 2016 au stade Iba Mar ki ko doon tëgg ma fàttali leen ko muy Kandji production. combat yi jeexagul week bi dafa neexoon alors bi nga xamante ni moom moo ci topp ñu ngi ko tëggoon le 15 mai 2016. toujours au stadium Iba Mar Diop premier combat bi nag mu ngi doon opposé ki nga xamante ni moom mooy Bathie Seras bu écurie Bathie Seras moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Adama Sarr bu écurie Thiaroye-sur-Mer deuxième combat bi dundu la woon bu écurie Walo moom moo daan ki nga xamante ni mooy Jet Li 2 bu écurie Xam Sa Cosaan alors troisième combat bi mu ngi doon opposé ki nga xamante ni moom mooy Abdou bu écurie Lamsar moom moo daan ki nga xamante bi ci bu toppaat di Joos numéro 2 xam la bu moom moo daan ki xamante ni moom mooy Garga Junior bu écurie Plateau. beneen combat bi mu ngi doon opposé ki nga xamante ni moom mooy Boy Bargny bu écurie Boy moom moo daan ki nga xamante moom mooy Sa Cadior 2 bu écurie Keur Massar Mboloo beneen combat bi mu ngi doon opposé Boy moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Clé 13 bu écurie Guédiawaye beneen combat bi Njalabaan bu écurie Boy Niang moom moo daan ki nga xamante moom mooy Laye Puissance bu écurie Mansour mbay Mor Fadam numéro 2 bu écurie Mor Fadam moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy honte bu écurie Fass léegi nag ñu daal di ñëw ci combat spécial bi bébé Diouldé bu écurie Cheikh Mbaba moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Baye Ndiaga bu écurie Sakku Xam-Xam ñu daal di tëjëg nag ci combat bi nga xamante ni moo ci gënoon moo ci gënoon a neex muy double moteur bu moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Boy Niang 2 bu écurie Balla loolu mooy combat yi nga xamante ni amoon nañ le 15 mai 2016 au stadium Iba Mar Diop ki ko doon abal nag muy Abdou Fall production di promoteur bu mag bu ñu ràññee ci ay lamb yu riche. combat yi jeexagul ne woon naa leen week-end bi dafa neexoon bi nga xamante ni moom moo nekkoon troisième production bi ñu amaloon ci week bi mu ñoo production moom moo fa jaar alors bii mu ñu ko amaloon lundi 16 mai 2016 au stadium Iba Mar ñu daal di tàmbaleeg nag ci combat bi nga xamante ni moom moo ubbi làmb ji muy solo bu écurie Géejawaay mbooloo moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Sabala bu écurie ki nga xamante ni moom mooy kilo mburu bu écurie xam sa cosaan moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy petit mort bu écurie Double ki nga xamante ni moom mooy cinq heures du matin moom moom tel na yow moom bu écurie Malika mbooloo moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy canal 16 bu écurie Parcelles mbooloo ki nga xamante ni moom mooy Kéemaan bu écurie Rock Énergie moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Rëw bu écurie Pape Diop Boston. Laye Bay 2 bu écurie Dalifor moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Pape Faye 2 bu écurie Jali Birama Thior. Boy Diop bu écurie Falay Balde moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Pape Thiam bu écurie Jimbori. ki nga xamante ni moom mooy Ladoum bu écurie Rock Énergie moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Africa bu écurie benn barak mbooloo. ki ci toppaat di Blindé bu écurie Grand Médine Mbolo moom moo daan ki nga xamante ni moom mooy Wali Banja bu écurie Double nag ñu daal di jàll ci combat spécial bi mu doon opposé ki nga xamante ni moom mooy Mbay Ndeer bu écurie benn barak Mbolo moom moo daan ki xamante ni moom mooy Dugaar Pël bu écurie Njaga Saar léegi bi nga xamante ni moo ci gënoon a rëy le grand combat mu ngi doon opposé jët yi bu écurie Xam Sa Cosaan moom daan ki nga xamante ni moom mooy Kayre numéro 2 bu écurie Soumbédioune alors Mouniang production moom ma leen doon may lundi bi 16 mai 2016 au stade Iba Mar Diop lii ci làmb lii moo nekkoon euh, combat yi nga xamante ni moo amoon ci weekend bi vendredi dimanche ak lundi léegi nag ñu daal di jàll ci métier euh, ñu daal di jàll déggal ma naan métier damaa mhm. yàqamti métier bi ñu daal di jàll ci li ki nga xamante ni moom mooy suñu tonton Khadim Samb mhm. moom nag macha allah ah, dafa mel ni dafa bëggante trop ak la langue de Molière waa moom dafa ko sopp nag ci biir xolam bi macha allah non dafa neex yu riche la fi def donc on va l'écouter ñu xool tey la la doon bàkk ci français ñu daal di dellusiwaat en tant que spécialiste de la lutte que pensez-vous maintenant de Forza ah oui ça nag euh, Forza par modestie c'est produit moi et Pape Mayel Diop actuel directeur général ADES ah ah força son départ jusqu'à notre jour Pape Maël il a créé força pièce par pièce le nom de força c'est sûr que Maël crée le nom de força mois et Maël seul c'est le bureau bureau Pape Maël au niveau de ASLM donc euh, força entre força et l'an 2000 c'est un combat grand combat c'est un grand combat parce que y a for l'an 2000 c'est un technicien fin forçage c'est une bagarreur sans recul un technicien un combat très beau parce que regarde entre Balla Beye et Baye Mandione bagarreur et technicien au départ du combat avant l'arbitre souffle moo ci di expérience contre force mais quatre-vingts pour cent expérience c'est très bon dans la lutte lutte les trois points état force technique et réfléchir dans les dans les seuls c'est sûr et certain inchallah tôt ou tard il va venir comme roi des arènes Tapha Tine oui c'est mon fils son père il m'attend il me regarde Tapha Tine fait deux défaites il y six ans son père son grand frère et Mbaye Ndew et Moussa Diagne l'ancien directeur général Dem Dikk il a amené Tapha chez moi il m'a dit Khadim vous êtes Bawol Bawol nous vous êtes de Bawol Bawol aujourd'hui il a doon Tafa c'est ma sœur Bari parce que moi je connais les familles Tafa Tafa son famille depuis 1549 jamais pour reculer ah oui Tafa famille c'est une c'est une noble à Bawol mais c'est une famille dure c'est une famille courageuse depuis 1549 eux que les de Tafatine et grand-père de son grand-père pour reculer même s'il y a des canons il y a pour changer les pieds oui machallah Tafa c'est une leader kon nag mbokk téléspectateurs yi xanaa dañu jaajëfal bu baax rek ki nga xamante ne moom moo di Khadim Samb ndax niñ koy waxee communicateur traditionnel waaye moom c'est un grand communicateur ndax ci li mu dégg mi ngi ci làkk ba mu baax waaye bu dee français tamit waxi noppi te li ci gën a neex sax maanaam lu mu wax mhm. képp ki nga xamante ne yaa ngi toog toog biir kër amaana déggoo sax li nga xamante ne moom moo di mhm. wolof waaye kàllaama bu muy làkk yaa ngi koy dégg kon nag ñu koy waxal voilà macha allah di ko jaajëfal bu baax man je lui fais la courbette <laughs> waaye buñ ci jógee rek saa su wax nañ ko nee nañ leen ci biir li nga xamante ne moom moo di du ku ci dolli cere amaana di nga war a mun a dolli li nga xamante ne moom moo di ñeex ba tax na saa su ne dañ leen di indi nag ay rubrique yu bees tàkk rubrique bu ñu jëm moom moo di métier xam ngeen ko defoon nag découvrir benn métier boo xamante ne nag benn mbër bu mag moom moo ñu ko defoon ba tax na à la demande générale comme ñu bare dañ ko bëgg def waaye bu jàllee nit yi tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy toog di seetaan ñoom ñoo koy bëggaat ba tax na à la demande générale dañ leen di may tout de suite la rubrique métier ak ki nga xamante ne moom moo di les de waaye ki koy def xam ngeen ko du kenn ku dul Sidaat Thioune borom jom jooju nañ dem xoolaat mbër war na bëre bëre am métier ndax nun ñii di duñ daan am suñu métier ak bu nu amul métier dem bay ku si man bay bay ku mënul bay yaa nga sa dex ga di napp boo nappee ñëw jaayi di ko def di def ba nga ñëw si teeru ba nga ñëw ne ànd si métier ku si amul métier dafa la yàlla ko yeggalul ndax ku nekk ak sa wërsëg waaye nag mbër moom day am métier. gàtt xel gënu ca dal parce que carrière yàggul carrière sportive sax wax yàggul. temps bi nga koy mënee ak bi nga koy arrêté dafa soriwul te bu la yàlla may gudd fan nga war a dundaan lu yàgg te jàppoo ci dara coono rek la lay loolu dañ ko gis muy li xew mais du lu xew rek mooy li baax non non métier day loo xam ne daf lay topp làmb pour benn période la rek boo xam ni après doole bi day jeex yaa ngi dégg xew-xew bi jeex lépp jeex te su boobaa boo amul métier da ngay am ay jafe-jafe mbëri nag yàggul. mbay yàmbalaat ko soo xoolee tey mbër yu mag yi tey dem nañu retraite ku ca amul métier waxuma la toog de waaye di nga toog di ñaan ci rajo yi ak télévision yi. duñ daan toog ba ñu am nga nu door toog ba di entraîner waaye mosuñu toog rek di entraîner di dem rek ni ni bañ am métier moom mosul am. bëre du métier bëre mën na sa ko boole liggéey mën na ko boo ko jàng comme footballeur tubaab boo déggee ñu ne sport étude. basket bi dañ koy boole jàng football bi dañ koy boole jàng kon bëri dañ ko war a boole liggéey. nañu kib nañu jàpp seen euh, métier boole ko ak sport bi day mel ni rek football da nga yor sa métier wala liggéey ba wàcc dem football yi wala dem defi beneen sport boo xam ne doo làmb kon bu yàlla indee sport muy làmb boole ko ak sa joob rek du dëgg Sénégal jëm kanam. làmb rek mooy sama métier dama leen yërëm. dem dem anawa anawa jaara si biir booy naka jaara si biir grand parcelle parcelle parcelle parcelle grand fooyam waaye waaye kii sama ko fee yow lay def fii waaw man maa ngi def mooy dooti kaar yow lay def fii parcelle laa jëm jëngal mu gaaw eh, sama waa ji waay way <laughs> copain mais sa waay baay man foog ma toog ñu waxtaan baay gaan eh booy xoolal ma fee am xoolal ma fee sa waay mais gaan lu bees mais namoon naa la baay mais baay am jàmm di la gis ci télé bi rek waaw ah. di la gis télé bi affaire naa si ngay def way boobu ba léegi xam nga mooy loolu gën nañ gis depuis Casamance ba xam nga ñu demoon dafa caravane de la paix ak Balla Gaye 2 mu nekkoon bu réussir bu ah, ne waaw bilaay bilaay bilaay bu yéeme mais yaa ngi si jàmm quand même. naa si gis. oui maa la gën a ah? maa la gën a eh, kon yaa ngi ci bi. waaw waaw maa ngi si bi every day. lan moo lay inspiré pour nga dugg ci affaire car rapide. waaw lu ma mooy car rapide man élève laa woon. waaw ah, jàng nga kon. ba fu nan tey di yem. classe naan mooy classe géwél yi CM2. cm am naa sama soo pee. Ah. waaw si si si am naa sama soo pee. waaw mais xam nga demoon jàng na ba si biir xam nga ay tax ma arrêté jàng nga quoi dem góor ji waaw ba may def di ko di liggéey sax boobu ma sóoru sax. ah bon ma que boobu CM2 laa bàyyee. CM2 bàyyi rek commencé la parce que jamono yooyu noonu jàng mi am na lu mu laaj te période boobu ñu ma waroon taxaw pour dimbali ma boobu ñoo ngi jëm mag xam nga te njàng mi boobu war na laaj ay affaire yu bari ay fourniture ay taxawu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boobu mënut ma ko woon am ta boobu gis naa tamit sunu kër gi sama baab mu ngi jëm mag boo ñu commencé néew doole te foog mu am ko ko jàppale ma ne daal xaaral ma bàyyi jàng dem liggéey mun ko taxawu di ko jàppale waaw loolu moo waraloon ma bàyyi sama jàng dem di langi euh, est-ce que yaa ngi fàttaliku bis bi ngay jëkk jóg ne da ngay lang karapit jour bu mooy njëkk dem di lang sa mbaaw daf ma jël jox ma benn sama benn nijaay ma dem di lang si moom mu nekk premier jour bi mu leer ma tey jii maa ngi génn mais du ma fanaane suñu kër quoi te si oto laay fanaane ah waaw si mu nekkoon affaire bu ma bu doy ba mu demee tamit sama nijaay bi téye ma nekkoon ku baax si man tamit quoi mais man tasante woon ak ay apprenti yu saay saay ah <laughs> ah, waaw waaw waaw ma tasante apprenti yu saay saay maa ngi fàttaliku premier jour bi nga xam ne oto bi yab na ba pare yab ba fees comme xaw ma loolu ma jàkkaar leen ni rek bëtt client yëpp tafu sama kanam ma bëgg a daw génne sama bopp bi apprenti bi dafa daf ma gorgé téem ma nii ne ma xullil sa bët yi ne nga xool leen boo leen xool doo mën a liggéey pour waaw boobu dama problème ñoom ñu may xool ma leen di xool kon amoon nga jafe pour liggéey premier jour bi am noonu naa si jafe-jafe trop mënu woon ñoom début bi yëpp day métti quoi bañ ma ba ma defee noonu na ma xool ma mu téye ma fa lu yàgg mu bàyyi ma dem taxaw nii nii fii la amu jënd taxaw journée boobu yëpp du ma woon jàkkaarloo client yi mais après suba si ma ne mais man damay dof wala lan parce que man naka laa mën ñëw fii pour liggéey di bañ a xoolanteeg ñii wala lan. nga am complexe ma am complexe boobu noonu premier jour bi. jour bi nag ba mu ñëwee nag dama ñëw rek taxaw fii nii. si digg bi affronté leen waaw. ok affronté leen. naka nga def waaw ma ñëw rek mu yàb ba fees ma taxaw si si kii bi. xam nga bu demee de enquête sama taxaru ko fee ne bu delsee ma ñëw taxaar fii di leen fixé rek jour boobu loolu rek moo nekkoon sama liggéey. kon journée boobu fixé rek rek xool client yi waaw xool client yi rek. jour boobu jàll nag affaire yi nag mel ni nag dañu commencé inspiré may toog di jàng arrêt di jàng arrêt parce que man presque sama langue tamit mun naa ne passe partout laa woon. après laa mujjoon di làmb passe partout waaw ah, mooy comme boo mu yóbbee yëmbal Fass Mbao dama fay liggéey boo mu yóbbee caaro yëmbal damay liggéey boo mu yóbbee Colobane leen bi damay liggéey mm-hmm. même si ñaay bi sax dama ko doon lang mm-hmm. dama doon lang mu amoon presque du ma noppalu mu jigi heure bu mu wàccee dañ ma doon xëccoo chauffeur yi ah chauffeur bu mu wàccee beneen parce que dama ko bëggoon ba pare lu taxoon ma dugg si loolu moo taxoon quoi parce que moo jugoon pour dimbali samay waajur loolu moo taxoon. Euh, euh, on a l'habitude de dire ñu naan euh, mbër yi monsieur ëpp ëpp am nu mbër yi mbër ay noble lañ boo gisee mbër di bëre bañ ku leen jàpp moo tax nii bëre rien que pour ñu am yóbbu seen kër xam nga la man yaa ma fekk maa ngi nii si taatu oto di lang kon du ma agresseur du ma sàcc. bëri na si tamit ah, kenn mbëri ñu si ëpp duñu agresseur duñu sàcc amul sax agresseur amul sàcc yi liggéey lañ xam dem dimbali seen yóbbu seen waa kër koo si laaj si télé bi lu mu lay wax dama bëgg dimbali samay waajur koo si laaj rek am na lu mu njëkkoon di def avant muy bëri muy man Balla Gaye 2 keneen Balla Gaye la woon man lii laa doon def ak keneen ak ak keneen ak keneen keneen waaw mbër yëpp ku si ne kooku laaj rek am na profession. tey su ma lay laaj ban nattu ci biir car nattuwaa am mos naa si am nag hmm. mos naa si am benn bis bu métti ba nga xam ne sax jour boobu wàcc sax naa wàcc bàyyi arrêté liggéey bi dem ñibbi. Ah d'accord parce que dama yeboon dama mosoon di jóge jóge Kapa di dem jàmm gën quoi yaraax ñëw ñëw bokk peut-être tableau yooyu noonu ma yàpp fa benn genre demi-mer. ma yàpp fa demi-mêre yàpp ko quoi mu yëy léegi mu xaw a mu xaw a baare dëgg bi quoi ma ne moo koy wax puusal noonu rek maire bi énervé wu si puusal bi rek ba saaga ma ndey te man période man du ma nangu ku ma saaga parce que peut-être xaw ma sax sama yaay bu baax dafa teel a wàcc mu yëy waaw. واشهد ان yagni jilimanam ala onagoya waidun kenullo Yaay boy boyo dama la jokkine ça c'est des exemples au fait euh, nga nga saaga jàmbur te dundul ak yaayam am na ñoo xamante ni vivre ak seen yaay euh, am na ñoo xamante ni seen yaay dafa teel a génn àdduna am na ñoo xamante ni miinante wuñu ak seen yaay kon neneen euh, kàddu bi génn ci làmmiñ dafa war a rafet rawatina ak mag rawatina ak xale les je crois que da ngay am tuuti courage Euh, nga gën a tenir ndax gis naa moment de sentiment yi nga xamante ni que euh, mi ngi ci yow ndaxte loolu touché na la lan ngeen di jàngoon teel ci biir tali clients yi circulation yi euh, policiers yi maanaam lii am ci circulation su ma la koy laaj yow lan nga may en tant qu'apprenti. lu may njëkk wax mooy sama apprenti yi laay njëkk a ñaan ñu wàcce seen xol bañ a topp clients yi parce que boo demee ba si biir boo xoolee sax neex nañ mu ñëw quoi. parce que doo gis benn client bu def sa oto une heure de temps xam nga kooku neex na mu ñëw na mu ñëw mais boo leen topp toujours si xeex man man dama naan xeex chaque jour ba mu jigi sama nijaay dama yow dama la bëre xeex rek xeex rek xeex rek parce que du mu woon nangu yenn yi quoi mm-hmm. waaw loolu moom ko doon def every day moom ba mu naan toog fii nii parce que des fois ma gis si nga xam ne bu dee góor nga moom am na yeneen boo ko bëggee yaay dama ko dama dama dama lay teel a limité parce que du ma woon tooñ quoi mais boo ma tooñee moom boo ma tooñee ma wax la nga bëgg nga bëgg nekk si bëgg si dëkk dama duma la duma yu métti di nga xeex dama waxtaan dina su ma déggoo lu ma la wax sans dépense si client yi nga yeb dina nga yab client mu yaakaar man maa fi gën. Mm-hmm. des fois ma yab client du ma wax ak ñoom parce que fii fu ma gis yenn yenn yenn kii seen kanam fay laay dem toog mais nag la des fois toog di la provoquer complètement di la chercher. kon client yi dafa am ñuy dugg uniquement pour provoquer la. am na si am na si loolu moom adduna fépp la si liggéey lépp la sax def ku ne ngay façon nit bu ne ngay gis. façon nit bu ne ngay gis. ah mais xam wàcc yow. nànk rek mu wàcc. sama tànk nànk ah ba ko wàcc ok ana waa muy dem mais yow sawe waay copain yow baax nga de da ngay taxawu yi quoi ah mais c'est normal que ku ne liggéey liggéey si nga mën a def lu baax quoi amuñu ay mag lañ mhm. xëy na amuñu yenn moyens ba yenn kii car rapide mooy car rapide lañu am quoi loolu moo tam foog ñu dawal yërmande si si eh, kanam yow. maa ngi si raadu wàcc. maa si kër gi nga bokk yow ñoo far. non non yow si nga bokk si nga bokk. si nga bokk si nga bokk. merci beaucoup merci beaucoup. <laughs> maa ko wàcc sauvegarde yow. waaw mais ceeb kontaan naa de. waaw waaw ñoo far ñoo ngeen. mais waaw ah man bëgg naa ci yow ah. ñoo fa ba kañ. loolu ba rek xam naa naa la woo wala nga woo ma rek. waaw ah, mais woo ma kañ ngay amaat combat. temps rek incha allahu rabi. léegi rek ñu wax waaw jeex na incha allahu ah, rabi. mais kontaan naa trop quoi. man maa la gën a kontaan comme gisee yàgg na presque cinq ans 2011 ba léegi. c'est vrai ah. oui oui oui 2011 ba tey ci lañ mujjee gisee oui. mais man damaa maa la gën a bëgg nga nekk si sa job. xam nga wuy ma gëm sa bop eh. xam nga di ñafe gëm sa métier. nekk ci donc vraiment ñu ngi lay encouragé bu baax a baax. bon yow tam yàlla na yàlla jàppale yaa ngi def lu nice. jaajëf les merci beaucoup les bëgg naa ci yow kontaan naa si daal. kontaan naa ci yow ok bëgg yee eh, ok ok. jaajëfate kontaan kontaan jaajëf waay ndeysaan sama waa ji ay ca kawal jaajëfate kontaan naa <laughs> ndeysaan c'est exceptionnel oh là là. vive Sida. gars yi lii mooy l'œil du tigre. alors tey suñu invité nekkoon ki nga xamante ni moo di les de les de euh, c'est un champion mais tey gis ngeen li nga xamante ni moom la ñu euh, les de wan les 2 euh, moom nag nekk na ko xamante ni que gis ngeen métier moo di apprenti apprenti bi nag dafay lang di laaj paas li ma naan ci kanam paas ku ñaaw fay ñaari place ku rafet du fay waaye ku fa nga yéeg ci kaw porte bagage yi alors kon ni ngi doon ànd ak les 2 merci à toute l'équipe technique le réalisateur hors pair, Tonton Mbaye Fall, merci. Merci à tous les téléspectateurs de la TFM. C'était l'œil du tigre. Vision. <laughs> Alors, comme ni ko si daal di waxee ku ñaaw fooy yëg ma doo ku fangi fooy dugg ci lépp ci carapide bi ci kaw a sous métier comme ni mu koy waxee mbër buñ ci mhm. jël rek dañuy daal di xool lan nga doon def avant ñu daal koy testé waat ak yow nga mhm. nettal ñu jan jafe-jafe nga ci daan am ak yan souvenir ñoo la ci gën a marqué ci métier yooyu nga doon def mhm. léegi tout de suite Mado li nga xamante ni moom mooy culture générale comme niñ leen koy ñaaxee à chaque fois culture générale dañuy xool mbër mi est-ce que rek dem yoonam wala xam na leen mooy règlement xam na lan mooy li nga xamante ni moom moo tëkku ak lamb est-ce que xam na ko ou pas chaque fois nag ñun fi ñun fi daan invité ñëpp macha allah dañ daan trouver li nga xamante ne moom la ñu doon def on va essayer de découvrir aujourd'hui suñu invité bi est-ce que xam-xamam màcc na bu baax a baax ci làmb ji wala am na fu mu jalgati wala am na daal foo xamante ne carrément dafa xalangu ba génn boîte vocale comme on a tendance à le dire on va regarder culture générale ànd ceeg tonton Tafa mu seetuwal ki nga xamante ne moom mooy Tapha Tine nañ ko seetaan. Tapha yeah. visite médicale. Mm-hmm. mbër. Mm-hmm. ndax mbër dafa war a am visite médicale par force. Mm-hmm. wala wala ko am te mën a bëri. non mënul nekk mbër bu defut visite médicale mënoo bëree. lu tax mënoo bëree. parce que da ngay mbër da nga war a am médecin mu lay xool médecin bu lay sif ah man boog am naa ko. te bi ma demee CNC pour régulariser defar sama licence it laaj nañu ma ko ñu won ma ko won na leen dara dalu ma ñu xool sama jumba xool sama yëpp mu nekk en normal ñu doog ma tàppel quoi chaque année dama koy def waaw ñu jaadu la. ce que mën nga mooy capitalu Sénégal. ndax Touba la wala Thiès la wala Dakar la mais ancien capital bi mu ngi nekkoon Ndar mais actuellement Dakar waay. voilà. Ah hmm. ah ba tey may dese yow ci. ba tey maa ngi des ak yow ci li naan visite médicale mbër ndax dafay valable boo ko xasee defoon la ak bu nekk dañ koy renouveler. non chaque année lañ ko def saa bu saison bi tijjee da nga ko war a dem def parce que mun nga feebar mun nga wer année prochaine nga feebar médecin bi xool la ne da nga feebar chaque année dañ koy def saa bu war a bëree dafa war a nekk sa licencié. parce que ci lépp maa ngi dugg yoon rek ci football nag est-ce que mën nga football déjà. bien sûr damooy football kay. ok d'accord waaw. football mag bi ñu wax Zinedine Zidane. Mhm. léegi entraîneur la ah. mhm. ban équipe lay entraîné ci équipe yi ma lay limal. Mhm. ndax Jaraaf bu Dakar la. <laughs> wala président écurie de lutte la. moom wala ko Real de Madrid la. Real lay entraîné mooy seen entraîneur quoi Real. moom kan. moom Zidane. li jëm ci mbirum dopage. Mhm. lu ñu teral la ci lamb ji wala lu waay neex def la. non dañ ko interdit. parce que nekkul lu baax mbir da nga war a jël régime alimentaire bu baax loo xam ne boo ko jëlee mu dem ci sa yaram mais paa ngay doppewu pour benn une heure deux heures trois heures de temps am ci doole après lamb ji nga neewaat doole non seen see day aaye lool yaakaar naa ñu ngi koy suivre instant vainqueur du roi des arènes. il soit naa ci yow ba tey dina laaj. Mhm. combat làmb. Mhm. ñaata minutes lay duré. waaw kay quinze quinze la rek. Hmm. waaye. leeral nañ ko. ngeen di bëri benn quinze minutes après bu kenn daanul. ngeen bëriwaat beneen quinze. après. waaw bu keneen am bu benn dix minutes. donc 15 ak ak 10 mooy ñaata minutes. 40 minutes. la macha allah. tax ci bi nag maa ngi lay laaj yoo xamante ne nag tey jii question la dina ma jaaxal trop nga tontu ko. kat mooy mbër mi nga xamante ne ci mbër yi takk ngeen di bëre ci arène bi. mbër mi nga xamante ne ginnaawam laalagul suuf maanaam daanaguñ ko ndax Bombardier la wala Fodé Sarr la wala Gris 2 la. waaw am na am na ay mbër yu bëri daanaguñu ko. Mhm. bari nañ mën nga ci compter lu mot vingt wala trente. mais dadi xëy na mën naa am xamuñu leen mais yaakaar naa ci ci gën a fes mooy booy bi Gris pour man mhm. waaw. Tafatine kan mooy premier ministre république du Sénégal li nga xam ne ci dëkk. Euh, Boun Abdallah Dionne. nekk na ko nan la tuddee te Abdoul Mbaye euh, tax ci ne ba tey maa ngi Sénégal bi nga dëkk Sénégal ñaata région ñoo fi nekk ndax fukki région la ndax fukk ak ñaar ay région la wala fukk ak ñeent ci ay région la. onze région la onze. fukk ak benn kër ah tey moom daanaka ngi compté fukki région ak ñeent. ah bon oh là la woon oh nag mais. am so dafa yokk yàgg na damaa gëj doon emprunté Ndiaga Ndiaye fu ne laa doon dem. am so Tapha Tine nan la ñuy wooyee ki nga xamante ne mooy premier dame du Sénégal nan la tudd Aminata Aminata Tall la. Uh-huh. la wala Marème Faye la. waaw moom la ko yàlla defal. sax ci dëkk nan nañu wooyee bëreeg nit tey ko génn saako yi loolu nan lañ ko tuddee boobu tudd. Hmm. nan la ñuy wooyee ma bamtuwaat ko. génn saako yi. Mm-hmm. naka la ko nit ñi di tuddee. mën nañ ko tuddee côté bu ne mën nañ laa ab doole pousse la nga génn mën nañu ko woowee ragal mën nga encaisser coup bari na ay tur daal waaw. takk ci li kat mooy jamono ji ñu toll nii entraîneur équipe nationale football. <laughs> Aliou Cissé la. Koussy entraîneur waaw. nekk footballeur. non la woon 2002 mais instant yi entraîneur Sénégal moo nekk entraîneur équipe nationale bi. ban jafe-jafe ngay am yow sooy bëri ki nga xamante ne tànku ndajoor la la jiita ban jafe-jafe. bëre am sooy bëri ki jiita tànku ndajoor. ku mel ni man muy toog Moustapha Guèye non pour man amul jafe-jafe ci boo mënee bëre mën a xeex du am jafe-jafe quoi. ci xeex bi ban jafe-jafe ci am wala ban avantage boo bu fekkee da nga teg droite mu teg droite xeex bu day neex mais bu fekkee dafa teg droite nga teg gauche affaire yi day xaw a sorante quoi. pour man ci ku mën a ja bëre amul jafe-jafe ci ku mën a bëre man bëri naa kuy teg droite ma daan ko kuy teg gauche daan na ci Tapha Tine ah en tout cas moom dama ah. koy defal ovation parce que maa ngi doon tiit bi ngay wax foo ne naa dana xalangu waaye amaana bi ma ko dégloo <laughs> benn question daal dafa mel ni moom la feraati ah baax na du ñu def noppi yow tamit bi may ah. ñëw dag ma yebaale ne mu fi ma jógee <laughs> waaw fi nga jógee da damaa xam ne maa waroon dem bi nga dem <laughs> région yi ah? ñaata la 14 la 14 waaw kon fan la euh, au collège, à primaire on l'apprend au collège ça. Écoute, euh, mais ça fait euh, ça fait maintenant longtemps hein donc. <laughs> alors li ñuy def rek xanaa li ñuy def par contre comme dañu jóge fi nga xamante ne moom moo di Mauritanie Fama Thioune amaana dëkk boo fa demee bu fekkee na nga tase ak ay nit yoo xamante ne dañ la fa sargal jàppale bàyyi la seen lépp jël li nga mhm. xamante ne moom moo di seen bopp jagle leen ko ba tax na nag dinaa fa taxaw rek cuuj fa sama baaraam delluwaat fee ca Mauritanie di remercier bu baax monsieur Idrissa Cheikh Bakayoko nekk nag fee ca Nouakchott dëkk ci Mauritanie quartier bu mu dëkk nag mi ngi tudd Mara Lo numéro 2 ñoom Mao Cissé képp koo xamante ne daal yaa ngi nekk ci équipe TFM demoon fële ci Mauritanie ñi ngi koy delloo njukkal di ko mm. sargalaat bu baax a baax man nag ki ma daloon toppatoo ma sës ma rëkk tax ba nga xamante ne tumrankew ma fa nag kooku nag moom moo di may mun a may mun a bëgg fàllu ñu ngi koy nuyu bu baax waaye Fama sànq maa ngi la mm-hmm. koy wax ñi ngi wone sànq ci li nga xamante ne moom moo di sunu zapping benn maanaam image bu tuuti ba ñu koy mooy nga mm-hmm. xamante ne moom moo di tonton Moustapha Gueye yow sa jëmu bopp yaa ngi koy naan ah, Mado lii de neex na ndax maa ngi fàttaliku tuur soow ndeysaan kon nag li ñuy def wax naa leen ko saa su ne dëkk ci dëkk bi dëkk ci nag di ci liggéey ba tax ku nekk bitim réew ràññee la dafa baax ba tax na nag mbokku téléspectateurs yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bitim réew maanaam di ay nasaraan def nañ nag benn maanaam benn onze minutes boo xamante ne dañ ko jagle spécialement ki nga xamante ne moom moo di tonton Moustapha Guèye di fàttaliku nag moom moo di un grand champion tàngu nag bi muy am ay tablette de chocolat dama koy tooñ comme nekk fi wane nañ nag maanaam fàttali li nga xamante ne moom moo di tonton Moustapha Guèye c'est une légende vivante vivante li koy firndeel nag mooy élément bii ñu leen di tegal mbokk téléspectateurs yi ñun dem xoolaat ñëwaat tout de suite. même bu njëkk ci àddina waaw soo weddee li may wax nag jël ñaari xale yu am 3 mois nga tëral ci benn lal lan la ñuy njëkk a def dañuy bëri. À 27 ans, Tafagay est une personnalité au Sénégal. Cette notoriété, il la une tradition africaine particulièrement importante dans ce pays. but. Mais avant d'être un sport de haut niveau, la lutte est une affaire de tradition, de culture, qui s'observe dans n'importe quel village du Sénégal. Elle cristallise toutes les tensions, les clivages de la ville, les oppositions ethniques ou religieuses, les concurrences entre quartiers trouvent dans l'arène un exutoire. L'argent circule. Les musiques et les danses permettent à chacun d'affirmer ses origines. La lutte devient le théâtre de la vraie vie quotidienne affichés avec ostentation parfois par les habitants la capitale. scooter de terrasser son adversaire à deux reprises sans porter de coup. C'est la lutte qui se pratique en brousse lors des affrontements entre villages, le plus souvent à l'occasion des fêtes des moissons. Les combats durent toute l'après-midi. Les vainqueurs, quelques anciens lutteurs et même l'arbitre dansent et récoltent de l'argent. Les donateurs remercient ainsi leurs représentants de les avoir bien défendus. au sol. Les lutteurs ne portant pas de gants, les chaos sont relativement fréquents. Aujourd'hui, Tafagay, invaincu cette année, va affronter Alioun Diouf, un de ses plus farouches adversaires. L'enjeu est de taille puisque si Tafa est vainqueur, il sera sacré roi des arènes, un titre officieux de champion du Sénégal. Mais plusieurs heures avant l'entrée de ces héros du jour, leurs marabouts, et autres jeteurs de sorts prennent possession du terrain, enterrant des gris-gris, préparant des mixtures. Leur rôle est capital, car vous l'avez compris, la lutte au Sénégal est une affaire de magie, le combat de puissance mystique. L'affrontement de deux lutteurs implique celui de leur marabout. La domination psychologique, la possession magique est en mesure de renverser tous les pronostics. La fait enfin son entrée et le public a les yeux rivés sur lui. C'est le premier grand moment de l'affrontement. La qualité de l'entrée du héros du jour constitue une bonne moitié de sa réputation d'auteur et les observateurs y perçoivent déjà la future issue du combat. à face ou bien sûr un cérémonial propre à l'écurie de face, le lait caillé dont il s'enduit le crâne a pour fonction de le rendre invincible de terroriser son adversaire. Ce sont ses griots personnels qui dans l'arène. Ils le soutiendront toute l'après-midi par des rythmes choisis. Tafa a maintenant derrière lui des milliers de supporters qui affirment leur identité ethnique par les danses et les rythmes des tam-tams. Tafa est leur représentant, Sa suite imposante, habillée par ses soins, danse d'un même pas, comme pour souligner sa force de groupe. Tafa est maintenant en communion totale avec son public, entouré de ses Il va maintenant lancer son défi. fait pour que le lutteur se sente entouré, protégé. Les troupes de Griot participent activement à cet affrontement psychologique des deux camps, chacun essayant d'imposer le rythme que lui a demandé son lutteur. Le stade résonne de tous ces tam qui encourageront leur héros jusqu'au bout. dëkk yi bu dul dara sax ay jullit lañ ñaan lu yàlla na la yàlla defal lu baax moo gën moo gën yàlla yàlla defal lu bon bon mystique nag boo am na seet ku ko gëm am na amul ko gëmul parce que eh, dañu jox téere bi ne la takkal sa loxo ndajoor nga takkal sa loxo ndajoor takkal sa tànk càmm nga takkal sa tànk càmm naan la nga naan sangu nga naan mais nag li nga xamante rek ci biir làmb ji mooy li ngay jëf yow mbër mi yow athlète bi parce que amul sëñ bu mu sa ñaanal bu ñaanal ba nga xool mbër mi nga béyal mu daanu fa nga def geste bëri ko song ko dóor ko daan ko mais kenn amagul ku xool nga daan donc sëriñ am na bu leen neexee ah man pour man am na ah, ku mu neex it nga jugé ko daal ku nekk daal yaa xam ne ko gisee am ñoo xamante ne gëmuñu seen dakk téere ñu def dara Thank you. Cela fait maintenant 5 heures que Tarfagaya Liondouf se prépare mentalement. Le soleil s'est couché, c'est timide. Sachant que leurs pouvoirs sont alors décuplés, les marabouts s'activent. làmb ji nag yow nga xam ne yaay bëre dañuy def jamaa di nangu kenn laal la di nangu kenn jigal la di nangu kenn photographie la sax faf parce que dañu xaar ne ñoom seen athlète boo ko laajee rek yàqu la dafa daanu quoi mën naa sax loolu nekkul ci mbir mi mbir mi xaaratul loolu mais ñi moom dañ ko war a ba ngelaw du ko changé ngelaw ko daal loolu nag bon du fi yàgg la donc euh, moo waral gars yi bari bu ñu fi mu ñu empêché leen poussé leen dàq daal loolu la. Les spectateurs sont maintenant en osmose avec les lutteurs, observant le moindre de leurs gestes. Le rythme hypnotisant des tam n'a pas cessé une seule seconde. Alioune tente de provoquer Tafa, mais il n'est manifestement pas rassuré. sérénité extraordinaire. Mentalement, il écrase déjà son adversaire. Alioune Diouf sait qu'il n'est pas prêt mentalement, mais maintenant il ne peut plus retarder le combat. Tafa va jouer à merveille de sa rapidité, de son punch, de sa technique et va terrasser Diouf en quelques secondes. c'est l'heure de la gloire, il est le roi des arènes, mais il sera maintenant l'homme à abattre, il le sait, et sa vie de champion sera sans doute plus difficile à assumer qu'il ne l'imagine. maa ngi leen di remercier nag aw ma seen fay yàlla moom seen fay yàlla moom fay seen fay yàlla neen yàlla fay allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Moustapha Guèye baaxul c'est magnifique Mado. waaw Fama comme ni ko waxee rek vraiment c'est magnifique ba tax na nag dañu mhm. defal benn ovation bu mag euh, ki nga xamante ne nag moom moo ji tonton Mbaye Fall. le fait mu déniché nu lay mais li daf may fàttali <laughs> baax yi voilà <laughs> xam nga fan la koy jëli jëli di ko indi di ko tegal boobu téléspectateur ovation à lui li daf may mhm. fàttali rek bu ñu demee Mauritanie sunu président Youssou Ndour dafa waxoon lenn loo xamante dafa am solo. dafa ne culture dina tax brassage am ci dëkk yu bari. te lii tey daf ko firndeel boo gisee ba ay nit yoo xamante ne ay nasaraan nañu nekk ay tubaab mm-hmm. ñëw xool gëstu ci li nga xamante ne moom moo di suñu culture culture bi nga xamante ne moom moo di lutte Moustapha Guèye nag def ci lenn loo xamante ne dafa mag mm-hmm. ba tax ñoom ñu ñëw gëstu def ci seen reportage yóbbu ko traduire ko en français ba ñu ñu war ko mun a jëlaat di ko utiliser donc mm-hmm. je pense que Sénégal ak nit ku mu munti doon ak foo munti nekk culture war nañ ko fonk faama dañ ko war a fonk bu baax a baax a baax gis nga mais moo consultant nag yàgg naa nekk ndaanaan nag dëgg la am tablette de même si euh, maintenant écoute <laughs>

<laughs> biiru ginaar la yor ak. bëri yeeg sey <laughs> chocolat chocolat chocolat yee sey. ak glace yeeg ñoom du mi nga pari rek ci meer ba nu mu tudd ci. naaya ah ci tata naaya baax na <laughs> ah, tata defe naa du ñëw sax ak chocolat yu sey waaye du double booli chocolat bu sey. mais juste mhm. encore rek remercier sa famille ba pare di ñaaxaat njabootam. waaw ndax seen papa liggéey na fi lenn loo xamante ni tubaat fa kàll. Mhm. donc ci branche boo leen mun munti nekk que ce soit dans les études que ce soit ci lutte wala loo leen munti bëgg na ngeen fonk seen. fayul gëm seen bopp ndax woyam fayul fayul fayul de <laughs> ndax lii référence la sama baay defoon na fi kooku sak la jar naa dox ni ko waxee bonde ba kuy sa papa ah, naan Moustapha Guèye waaye ñun itam ndeysaan kuy sa yaay ah Mado. <laughs> ay kuy sa yaay nga ne Fama Mama Degen. ah wala yow ah. itam kuy sa yaay nga ne Fama déet suñu njabooti rek. ah laa ñaaxaale. d'accord ah. ñu leen di ñaax a ñaax bu baax a mhm. baax. donc on espère que vous avez apprécié li nga mhm. xamante ni moom lañ leen indi doon tey ci seen émission L'Oeil du Tigre. Mhm. di baax a baax ñi nga xamante ni ñoo ciy jàpp ba émission bi di mën a nekk muy équipe technique bi ma bàyyi la nga jaaree ci ñoom. donc équipe technique bi xam nañu ne ki ko diriger c'est Mawo Cissé waaye tey dama koy pousser fële. di jël yëpp gërëm bi yëpp di ko jox ki nga xamante ne moom moo di Amina Sow di madame Maawu Cissé ndax moom itam daf ci sonn tata asu nekk fee nga mhm. xamante ne moo di Mauritanie asu Diallo moom itam nee na bàq na la 1 million tey ah, dem yii kaay booy na la day dolli tudd nga ku mu day dolli ndax bu ñu demee ñoom daf ñu dóor déedéet mu ne nii bu mu bàkkati dara ndax li mu joxe ca Mauritanie dafa doy sëkk jox la nga lekk la nga naan ba pare yabee la tissu ah oh. yow itam Maawo gàcce nga laa ma kon Amina <laughs> jëlal lii mais comme ni ñu koy waxee rek l'équipe technique femme ki nga xamante ne moom laa taseel di Yaya yow nit naa ne nedd ko bandum moom nag sama mbokk la ñu koy remercier bu baax. ki nga jàkkaar loolu nu mu tudd. ku baax rek. Cissé Ngaari dafay xuloog moom. <laughs> <laughs> njar meew. <laughs> donc moom soxna Diarra Cissé ma wax la bu baax Amina aussi elle est derrière Amina mhm. Diallo moom itamit c'est une assistante gëm boppam moom itam émission bu ñu def da koy réaliser ñi ngi koy remercier Pape Doudou Guèye xam nañ ko ci son bi lay nekk ki nga xamante ne moom moo di Bamba aussi l'ivoirien moom mi ngi nekk ci li nga xamante ne moom bi Fama. Mhm. je a laisse nga remercier tamit ki nga xamante ne mooy monté ak tonton Mbaye Fall. waaw Moussa la kooku ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom tey daf fi guddee tey xam naa madame na ma baal parce que ñun ñëpp fi téye tey. Mhm. alors di euh, ak Laye sama sama petit frère bu baax boobu ñu ngi koy aussi bu baax a baax ci monteur bi la nekk aussi. Mhm. Euh, di remercier tonton Mbaye Fall moom bi nga xamante moom mooy waral lii lépp ñuy ñëw à chaque fois di tonton Moustapha Gueye le champion l'expert donc tonton Mbaye Fall amuñu fayam di remercier aussi Tata Khady moom mooy madame Fall ñu koy jaajëfal bu baax di remercier Platinum Mado mhm, Platinum ñoom ñoo jaar ci li nga xamante ne moom mooy sama bopp bi mhm. donc ñoom ñu ngi nekk extension yi voilà nga xam ne lu la neex nga koy coiffer lu la neex nga koy def mhm. donc ñoom ñu ngi nekk Liberté 6 extension Euh, juste après Idika bi fa la ñu nekk donc immeuble bu gris rouge boobu mhm. foofu la ñu nekk doxantu leen fa lépp la ñuy def habillement aussi pour les grandes dames dañ koy def di def aussi li nga xamante ne moom mooy les extensions ak traitement euh, centre la en fait mhm. di jaajëfal ki nga xamante moom mooy Dija création moom numéro téléphone dina jàll kooku mooy Khady Diaw mhm. du sama Dija du sama mag ju baax ji bii Khady Diaw la euh, moom mooy borom Dija création moom moo jaar ci tenue bi donc numéro téléphone am dina jàll ngeen mën fa doxantu ñu defaral leen yu rafet yu nice ma doo koy gërëm au fait damay remercier bu baax ki nga xamante ne ñëpp xam nañ maak moom kooku nag moom moo di kati création wax ci moom du ma ci tàyyi waaye amaana lu ma ci wax rek xanaa bu ñaa lay doon ndax mbaaxam ñëpp fësal nañ fësal na ko mm-hmm. ci man fësal ko ci àdduna wërgal kër ba tax na même bi may dem Mauritanie mi ngi dëkk ci maanaam ab valise yére la ma jox ne ma solal simmeeku naam sax dama demoon di maquiller <laughs> donc kati création maa ngi koy remercier bu baax ak Anta mi nga xamante ne moom moo fa nekk di doomu ndeyam jàppale ko waaye ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo ma defal sama coiffure bi waaw àdduna bët la dama koy wone di remercier bu baax équipe Glam Style by Madou teg ko nag ci loxo Fatou Fatou Thiandoum sama rakk boobu ak Mame Diarra nga xamante moom moo ci jàpp du ma fàtte jamais mami et surtout nag Ngone ma princesse à moi Fatou aussi tu ma princesse bu ko fàtte. on espère que vous avez apprécié et adoré di nuyu waa Ciloñ bu baax a baax. Cheikh Abdoul sama Ciloñ sama dëkk dangay dem Fouta yow damay dem Fouta di <laughs> man man man waa di ah donc di jaajëfal waa chef Abdoul bu baax a baax moom mhm. waram Ciloñ na donc on les on vous remercie ñu ngi yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy seetaan à chaque fois di mm. leen jox daje la semaine prochaine pour d'autres innovations pour yu bees tàq yu neex sur votre émission L'Oeil du Tigre oh, sur la télévision Futur Média dans votre émission L'Oeil <laughs> du Tigre voilà bien dit di nuyu waat bu baax nag ki nga xamante ne moom moo di Thierno du nuru Kane nekk sama maam def nag ay jàng fee nga xamante ne moom moo di tulde di mat yëpp mënuma woon ñëw ndax dañ ma sasoon liggéey ma dem ba Mauritanie mais sama xel sama xalaat yëpp mi ngi fa ndax doomu Fuuta laa doomu Podor la allah merci. Aïcha bonne soirée au revoir.